salaam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيشها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد wa ali wa sahbi ya man jaala asil urufa ridaka wa rida rasulika alayhi salatu wassalam wa furata jami'al mu'minin wal mu'minati ya man khala wa kana qan alayna nasrul mu'minin bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كلي بأمد وسكور إلى ولي المؤمنين والسكور وجهت كلي بأمد وسكور إلى ولي المؤمنين وسكور كن يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك هادي البصير أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا الزمن أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا الزمن أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا الزمن نفحتنا بأفضل الإيمان فلتنفئ الجميع بالأمان أفسنا به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام خدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسلها من أمدا قد صلاة وسلاما أبدا لهم كما أحصيت من لم يهبدا إلى نبي خدي صلاة والسلام والأنبياء ورسل منشل الكلام على نبي محمد ولا إله سلي وسلم واستجب سؤالي للمنتقى أكتم ما يزور بلا نعاية وخدمة تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جالو مختارا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جالو مختارا نافي السليم ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من أبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بتسليم واذكر كتبيا audu billahi min asheytaan irajim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha min asheytaan irajim rabbi audu bika min hamasaati shayatin wa audu bika rabbi an yahduruun wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala wa sahbihi xurril mayamin wa man ihtada bi hadihi ila yawmi din mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mboolem mbokk yi nga xam ne yéen a safoo seen télévision Mafaatihul Bichri TV tey jii nag ñi nga amaat mbégte ci jàkkaarloog yéen xam ngeen ne su ngeen gisee jataay bu tedd bi di ngeen xam ne am na xew-xew bu rëy boo xam ne mooy waaj xew muy lan muy màggalu soxna Faat Ja Mbàkke te mu war a doon alxames incha allahu taala loola nag euh, moo waral tey jii ñu ñëw fii ci ëttub soxna Faat Ja Mbàkke nga xam ne soxna Faat Ja Mbàkke incha allahu taala tey jii moom lañ leen fa yéenee waxtaanal amal benn plateau boo xam ne spécial lay doon waaye ci waajtaayu màggalu soxna Faat Ja Mbàkke ñu koy amal fii ci ëttam bu tedd bi mu mel ni nag kon waxtaan wi incha allahu taala ñu ngi ko fa yéenee siq ak ay bokk yoo xam ni ñoom ñu ngi ginnaaw bu ñu leen siyaaree kenn ku ne jox leen seen wàccuwaay waaye donc ngant ci képp koo xam ne mi ngi ne gis ci jataay bii ci kaw di xam ne rek lu mënta ñàkk la ñu ngi koy tuub bu baax a baax euh, soxna Faat Ja nag ku ne xam na ni mooy taawub sëriñ Touba mooy doomi Serigne Touba waaye mooy taalibeb Serigne Touba ba incha allahu taala moom lañ fa yéenee waxtaanee ndax wax naa ni euh, gis naa am mbind mu siiw moo xam ni mel na ni baat boobu rek buñ ci waxtaanan day doy sëkk te gis nañ ni soxna May moom sëriñ tubaa bi mu jàngale bi mu jàngee ba mokkal alxuraan sëriñ tubaa da ko ne wutal dara te dem ca soxna ja Mbàkke mu jàngale ak taalibe nga xam ni kon soxna ja école la woon boo xam ne da doon jàngale ak taalibe waaye soxna Fatja école la woon boo xam ne da doon jàngale ab yar waaye soxna ja euh, kenn la woon ci doomi borom Touba yi koo xam ni pastéefam ak pas-pasam moo taxan Serigne Touba taamu ko. ba jël njabootam gu tedd ga wax ko ni ko demal ci moom wut dara dem ci moom mu jàngale ak taalibe bi lam ko ca tegale te sëriñ Alaaji Mbàkke nettali ko dafa wax ni feenu jëm de nees na faa mot lu ne ba mu des ak taalibe bi kon da ko kon loolu moo ku kii dégg rek dana xam ni kii nga xamante ni moom la ni waaj a waxtaane jëmm la woon joo xam ne moo doon école bi nga xam ne moo doon jàngale ak taalibe bi waaye niñ ko waxee euh, incha allah taala waxtaan wi dañ ko fas yéene siq ak sëriñ Ahmadou Mbàkke moom sëñ Baara tey jataay bi ñu nekk nag ku ne xam na ne Serigne Bara Mbacke mii tey moom mooy xalifab soxna ja Mbacke li ko waral it incha allahu taala danañ ci ñëw ndax ku ne xam na ne soxna Fatja Mbacke soxna Boussa Jalla bokkal nga xam ne moom la borom Tuubaa waxal ni ko mooy sa doom soxna Boussa moom nag te yàlla dogal na ak njabootam ñooy taxawee ginnaaw soxna ja incha allahu bu buñ ci ñëwee dana gën a leer waaye waxtaan wi ginnaaw buñ ko seqeeg sëñ Ahmadou moom moo ni waxal kan mooy soxna Fatja moo ni wax taarixam ak ni nga xamante ne soxna Faty Dia noonu la bokkeek mbooleem ñi baax ci réew mi ñëpp incha allahu taala euh, ki ñu ciy teg mooy sëriñ Moustapha Mbacke moom it incha allahu taala moo ni waxtaanal maanaam ni nga xam ne soxna si noonu la daan doxale digganteem ak ay bokkam waaye ni nga xam noonu la daan doxale digganteem ak mbokki taalibe mbokki taalibe waaye kon it bu ñu ca jógee ñëw sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom it mu wax nu soxna si ni mu daan yare ndax xam nga ne ak taalibe ku ko wax wax ab yar incha allahu taala fas fas yéene nañ amal waxtaan wi ci tomb yooyu ma wax ak leneen loo xam ne dolli ko na ci kon ni ñuy def rek mooy euh, fas yéene jox sunu kàddu sëriñ Ahmadou mbakke comme ni ma koy waxee nag mel na ni kër gi mboolem kilifa yëpp teew nañ incha allahu taala ci kanam ñoom ñëpp danañ leen wala rek ñoom lim leen ñoom ñëpp yàpp naa ni bu ngeen gisee jataay bi di ngeen xam ni kër gi ñi ci ëpp te ngànk liggéey bi rawatina liggéey bi nga xamante ni moom la soxna si yoroon doon ko def ñoom ñëpp teew nañ ci jataay bi kon ñu ngi ci santaat Sëriñ Tuubaa bu baax di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala ñu tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim waaye àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamina maa ngi indiwaat kàddu yi nga xam ne naka jekk buñ masaa di xamle kenn ci waa kër borom Tuubaa yi moo xam Cheikh Moustapha al la moo xam Sëriñ Fallu la moo xam Sëriñ Abdul Ahad la moo xam sëriñ Abdul Xaadir la ba ca sëriñ Saaliw ba ca Cheikh Mourtada mboolem doomi borom tubaa jun mas di waxtaane dañuy wax ne lañ ca jublu mooy ñiy seetaan xam kooka jën jëmm la ak ban taxawaay la aman ngir ñu mën a roy ci ñoom ay jikko yu rafet yoo xam ne boo ëllëgee nun ñëpp kat kenn ku ne da nga mën a xam ni jëm ji kat bañ ko waxtaane jëlee naa ci moom ay jikko ak ay melokaan yoo xam ne ba tey ji maa ngi ci dund te jàpp naa ne loolu buñ ko defee nun ñëpp li sëriñ bëgg ci ñun danañ ko am kon sëriñ bi sëñ Ahmadou Euh, ginnaaw bu ñu sant yàlla bu baax damay fas naa jox kàddu gi su ko defee nga ñëwal nu ci leef ni auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu wa xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima mbokki jullit rawatina mbokki taalibe yi noo ngi fii ci ëttub kër soxna Faty Dia Mbacké soxna Faty Dia Mbacké mi nga xam ne mooy taawub Serigne Touba soxna Faty Dia mooy kan waajuram wu jigéen moom la ñuy wax soxna jature euh, soxna jature euh, soxna Faati Balla Soxra muy waajuram ndax maam Balla Aysa dafa amoon ñaari Faati Balla Faati Balla Kubra ak Faati Balla Soxra faati la soxraa nag moom mooy ki nga xamante ni mi mooy waajuru soxna ja Touré euh, soxna faati ja mu ngi gane jamono ci mille huit cent soixante dix huit ca Mbàkke Kajoor euh, wax nañu ne Mamour Anta Sali moo ko tudd ba tax na tax lu bari Serigne Touba daanaka wax ne ko mbaa doo fàtte sama moor moo la tuddoon de am njàngam sëriñ bi moo ko doon jàngalal boppam gannaaw bi am na ñeneen ci mag ñi ñu ko jàngal ci lenn ci magi ta mag ñu taqawoon ak Serigne Touba Serigne Touba it moo ko tërbiyaaloon boppam néewaana mu taqali ko woon ak moom xanaa lu dul bi sëriñ bi demee ci géej gi euh, ku fonkoon jaamu yàlla la lool rawatina julli guddi waxtu wu ne. bu guddi gi masaa sori ah, ñu taxawoon nag moom xam nañ ne dawul def lenn amul bon amutoon benn liggéey guddeem bu mu daa def lu dul naafila ak a wérd ak jàng alxuraan nuru woon na sëriñ tubaa lool nag rawatina ci xar kanam ñu xamoon tubaa ko ku commencé ne jàkk rek saw yaram day daw ngir nuru gum ko nuru woon xar nu woon na ko lool it kàddu ndax noonu yi nga xam ne ku baax ki ba masaa di wax euh, maanaam dënn bi day riir soxna Fatou Dia loolu la suñ borom defoon ci moom foo masaa dégg kàddoom rek te ña xamoon sëriñ bi seen àdduna bépp day tukki ndax noonu sëriñ bi daa waxee rek noonu moom it la daa waxee hmm. Euh, sëriñ bi wax nañ ne dafa am benn benn benn naaru gànnaar boo xamante ne bii da koo mas ne ko euh, gis naa sa doom de ju ñuy wax Fatima mu teg ci ne ko innaha muridatun sadiqa kon yaakaar naa loolu ab tënk la bu dee sëkk ci ne moom pëstéefam kenn amu ko ndax murid saadix ci li gën a jafe ci àdduna ci la bokk koo xamante ne bi nag Sëriñ Tuubaa ci boppam moo la seereel sag murid saadix kooka kone xam ne kenn du moom sëriñ ndax bokk na ci pëstéefam boobu yi sëriñ Mouhamadul Moustapha mas naa ñëw këram këram gii bi muy dem mu tibb ci mu tibb ci ruuti oto bi di ko barkeeloo ngir ne oto boo xamante ne bii dafa yàpp doomi Serigne Touba kon fu jaar ba jàll ruuti oto ba barke nga ci boo xamante ne bii a lu ci waaye fas mën ko ci am moom foofu la foofu la tolloon ci Pastef bi muy nekk Daaru Salaam saxaar gi ba saa jóge Touba di ñëw day ñëw ba ci gaar ba summi ay dàllam di wax ne kat saxaar goo xamante ne bii eh, ma nga xëyee fa sëriñ Touba moom day barkeelu ci moom ba saxaar gi jàll mu door delluwaat këram yaakaar naa loolu pëste fii la mën a yem waaw sëriñ bi soxna Fatou Dia hmm. euh, soxna mu demee soxna Bousso jam yi nga xamante ne sëriñ Tuubaa ko waxoon ni mooy sa doom waaw danaa ci ñëw hmm. damaa bëggoon bu ma tënkee rek hmm. kan mooy soxna Fati ba ci sama mujjantal ma indi loolu ndax loolu it leeral ko leeral ko du ci mën a ñàkk waaye ci laa jëm si incha allahu rabbi ba tey ci wàllu pësee fa mboob yi liggéeyub jumaa ji biñ koy liggéeyal mboolem lim amoon ci ay takkaay lépp da koo jël jaay ko def ko ci liggéeyub jumaa ji ak takkaay ni mu toll ci jigéen kon a xamante ne bi kon a xam ne ne kon loola pësif dëgg dëgg dëgg dëgg maanaam moo ko moo mooy tax nit ki def loola pësifum ci Sëriñ Tuubaa moom buñ fiñ toogoon di ko di ko di ko di ko di ko misaal ba suba sax duñ ko mën a duñ ko mën a jeexal ndax kenn ku ci ne ci nun ñi rek boo ko nattee sa bopp bari na ci yoo xam ne nii daana ko def ci xeeti jëfi Pastef nga xam ne maanaam boo ko nattee sa bopp sax dana la wër ne yow moom ak goo foofa yow mu nga xam ne ab ab donga dong nga na nag kon moom mi nga xam ne doomi Sëriñ Tuubaa la ba noppi àgg ci Pastef foo xam foo xamante ne bii yow yow eh, sama classe nga xam ne maanaam ay ay dong rek lañ moom jegewuñ ko fa loolu kon seerale ne Pastef fa moom jagleeg Sëriñ Tuubaa la woon kon nag ngir tont ci li li nga ma laaj ci nu mu demee woon ci soxna bu Busa moom nu nu gàtt la nu yomba leeral la ndax mook soxna Busa ñoo bokkoon benn waajur bu jigéen soxna ja mooy seen waajur wu jigéen bi yàlla dogalee ci moom nag li mu dogal muy ñàkk am doom gi dafa dem ci Serigne tubaa am na ñu ne da caa yónnee am na ñu ne da caa demal boppam xamal ko ne ko man dey bëggoon naa loolu ñuy wax doom bu gënee ci man bëggoon naa ko ma ci ñaanal ma am ko. mu ne ko baax na danaa la ci tontu bi toogee ab diir ginnaaw bi mu wol ko ba mu ñëw mu xamal ko ne ko sa borom nee na ma soxna bu sa mooy sa doom bu sa mi mu bokkal benn waajur bu jigéen mu ne ko sa borom nee na ma soxna bu sa def na soxna bu sa muy sa doom ngir nag pësteef ba mu amoon ci Serigne Touba tax soxna bu sa moomee mu jàppe ko ne doomi boppam jëm jur ginnaaw bi nga xamante ne bi soxna bu sa nag làqu na doomi soxna bu sa yi nga xamante ne bi tey ñoo fi nekk mu jàppe leen moom it ne njabootu boppam ah, ñooñi ka ca magoon mooy sëriñ Basiiru Moor làqu na ka nga xamante ne bi maanaam moo ca toppoon di sëriñ Mamour la am na it ku ñuy wax sëriñ Modou Mbacké ba tey moom it ñoo bokkoon soxna bu sa ja ah, ba ci sëriñ Bara mii nga xam ni tey moo fi des di xalifa soxna Faty ja ñu toog ab toogaayam yàlla na ko fi sama borom yàggal ca wéral ko ah, ci barkeb sëriñ tubaa kon daal dafa mel ne lii moom ab tënk la bu gàtt rek ci wax kan mooy soxna Bousso Dia xam naa kon damay jox sama mbokk yi ci des muy sëriñ Abdoul ak sëriñ Moustapha ñoom incha allahu rabbi kenn ku ci ne bu jëlee ci ah, ca fànn gam war a leeral dana ca leeral la ca la ca la ca mat a leeral lépp. sëñ Ahmadou Mbacké euh, kàddu yi am na solo mbokk yi seetaan yëpp it xam nañ kan mooy soxna Faty Dia ak ñan la bokkal euh, mu mel ni comme ni ma déggee noonu nga ko waxee léegi rek ci mbokk soxna Faty Dia kon mel na ne plateau bi ñu fi nekk ñëpp génnuñu soxna Faty Dia kon loolu santaan nañ ci suñu borom subhaanahu wa taala baax a baax waaye li ñu dégg ci biir wax jeet mooy gis nañ ni euh, soxna Faty Dia ku aman Pastef la waaye soxna Faty Dia ku aman tawféex la ci digganteem ak sëriñ tubaa ndax. Euh, am na nettali bu siw boo xam ne euh, soxna Faat Ja moo ko nettali ci bi sëriñ Touba di dem ci liggéey géej gi kon soxna Faat Ja loolu li muy firi mooy ku takkoo woon la ak Serigne Touba maanaam ku takkoo woon la ak Serigne Touba waaye ku Serigne Touba wóolu woon laat ci lépp kon ni ñuy def rek ni ñu fas yéene mooy ni ma ko waxee woon ci tàmbali bi dañuy jàll sëñ Abdoul Ahad sëñ Abdoul Ahad euh, moom mi nag moom comme ni ñu ko waxee sëñ Muudu Mbàkke moo ko mooy mooy waajuram waaye sëñ Muudu Mbàkke moomu sëñ Baara Xuruja mooy waajuram kon mel na ni ni ñu ko waxee rek euh, ñoom ñëpp dañoo wëlbatiku bokkaat ci soxna Faat Ja kon ni ñuy fas yéene def mooy ñu jox sëñ Abdoul Ahad sunu kàddu waaye ni ñu ko présenté woon ci waxtaan wi mooy sëñ Abdoul Ahad moo ñu dikkal ci soxna si naka la daan ya naka la daan yare maanaam soxna si naka la daan yare ginnaaw bi nga xamante ne moom Serigne Touba moo ko jàngal yar ko moom soxna si naka la daan yare bismillahi rahmaani rahim aoudu billahi min alcheytaani bika wa duriyataha min alcheytaani arrajim rabbi aoudu bika min hamazati alchayatin wa aoudu bika rabbi an yaxduruun ñuy nuyu ñëpp di ziare ñëpp di baalu àq ñëpp di jégalu ci jotaay bi te ziara Sëriñ Baara mi nga xam ne moo fi tooge jotaay soxna si di ñaan suñu borom yàggal ko fi te gën ko yokk ak wér ak Cheikh al moom soxna si moom ni mu daan yare dañuy wax ne yar ñaari xeet la yar boo xam ne dafa amee ci diggante defal ak bàyyil maanaam di digal ki yar ak di ko tere ak yar boo xam ne ma dangay fexe ba lépp loo bëggut ki nga yar du ko def bë bëggoo lépp loo xam ne bëggoo mu def ko rek nga di ko wattandiku lépp loo bëgg mu mel ko itam nga fexe koo mel yow nga xam ne bu la gisee rek dala dala ciy daal di roy moom ci boppam soxna si nag bu ñu xoolee day mel ne ñaar yëpp la boole woon waaye nag yar ci jëf la ëppoon lu muy def nga xam ne eh, day jëf-jëfi Pastef di wax waxi Pastef di dox di dox di dox doxinu Pastef bu defee loolu nag képp ku yàlla booleeg moom rek doo ko mën a ñàkk a roy ca loola mën nañoo wax ne ab yaram ci loolu la ëppee donte nag mën nañoo wax ne fu fu mu gisee ku def lu jaaduwut du ko ca bàyyi. fu mu gisee eh, lu nit war a def itam faaw mu soññu ko ci waaye li mel ne daal li ëppoon ci ab yaram dafa nekkoon rek ci eh, mel ni nga xam ne noonu la war a mel bu ko defee eh, mboolem ñi nekkoon ci moom di ko rey ca loola te mooy ci li daan yar yare nag mooy ci yarub lislaam rek akuk taalibe ndax loolu rek mooy li ci mooy li nga xam ne ci la ko sëñ bi yar sëñ bi ci lislaam ak euh, topp ndigali yàlla yi ak wattandiku ay tereem ak akuk taalibe ak bëgg sëñ bi te bañ koo booleeg dara ci loolu rek la ko sëñ bi yar te ku nekk xam ne ku nekk la nga jàng rek ngay tari loolu moo tax ci loolu rek la daan yare li koy wane itam mooy mbooleem ñi nekkoon ak moom mbooleem ñi mu yar loolu rek ngay gis ci ñoom koo ci gis eh, alxuraan rek lay def wéttalam li ci ñi ci jiitu di njabootu boppam kenn mosu leen a dégg ci leneen lu dul lislaam kenn mosu leen dégg ci lu dul alxuraan kenn mosu leen dégg ci lu wuuteeg mbir bëgguk sëñ bi li ci tege mooy mboolem taalibe yi nekkoon ak moom ñoom tamit ñoom ñëpp koo ci xam rek ci ak mbaax ak bëgg lu baax ak farlu ci diine fonk jaamu yàlla julli ak jàng alxuraan ak jàng xasida ak fonk berde ci loolu rek nga koy xam ndax soxna ci loolu rek leen yar waaw yar leen ci fonk sëñ bi fonk ak njabootam ak euh, fonk jullit ñi loo am ci aw ñam attan koo joxe te yàlla rek tax euh, yor leen itam ci ni ko euh, sëñ Ahmadou waxee léegi am pësteef ci sëñ bi noonu ñu ko waxee ci sëñ Modou Moustapha ak moom daan def ci saxaar gi fi mu war a jaar rek wax nañ ne sax ba ci. am na xaaxaam yu nekkoon foofu ci Daaru Salaam daan dem di ci joggi tànk yi daan dafa bëgg xaaxaam boo xam ne maamam mas na jëm sëñ bi jam ko ngir mu barkeeloo ci loolu xam nga loolu koo gis rek faaw mu am lu la yokkaat nga gën a am positif ci sëñ bi ak moom ni mu demee ak sëñ bi nga xam ne moom la sëñ bi njëkk gis ci njaboot. yaral ko boppam nekk koo xam ne sëñ bee ko yaral boppam ci jamono yi nga xam ne sëñ bi mi ngi ci ak féex jamono yi muy soog a sañ ci Touba bi sëñ bi daan tërbiyee tërbiyee bu mett be tërbi nga tërbiyee bi nga xam ne moo ko daan defal boppam soxna si ci jamono yooyu jamono boobu la fekke moom moo taxoon noonu rek la daan tërbiyewaat nag mboolem ñi mu daan tërbiye fexe ba duñ amati ak bëgg bu mbirum yàlla xasee taxaw moo tax euh, bokk na ci ab tarbiyaam dañ daan nettali ne bu masaa defar aw ñam ba noppi euh, lu buñ ko jëfandikoo wut itam ba mu soppiku du dana fexe ñu jëfandikoo ko ak nu mën di mel nag nit ñi danañ ko jëfandikoo ak lu mu fa yàgg-yàgg lépp ngir yar ñi mu nekkal ci ne lu xas jëm ci sëñ bi moom maanaam kenn kenn wul koo sànni kenn wul koo tuuri ak yar ñim nekkaloon itam ci ñu wattandi ak yàq ñoom yooyu mu daan togg mu daan defar itam da ci doon jublu rek soññ nit ñi ci ñu fonk joxe ak dimbale seen bokkum jullit kon daal soxna si ñu ko waxee rek euh, ba Eh, fonkonte itam xale bu toll ci waxtu waxtu jàng ñu koy jàngloo waxtu nekk daana xool ku ko doy koo xam ne ku mën a jàngale la moo xam ku war a jàngal alxuraan la wala ku war a jàngal xam-xam mu jàngal ko ndax soxna si moom tamit noonu la defoon jàng na alxuraan waaye teewul diini itam jàng na ko ku amoon xam-xam la am na mbokk mu ne ma. gis na ab bataaxal boo xam ne moom soxna si moo ko doon bind sëñ bi te nee na ci waxinu arab wu yéeme la ko waxee boo xam ne ku ko gis rek da nga xam ne kii ku jàng la loolu tegtal la bu leer ci ne maanaa yëmutoon rek ci ak taalibe waaye ku jàngoon la itam noon tamit la daan def ci mboolem ñi mu nekkaloon leen daan soññ ci ñu jàng alxuraan jàng seen diina mboolem ak njabootam itam ñu mu njaboote tamit ci yoon woowu rek la leen jaarale ci jàngal leen alxuraan jàngal leen diine ak mboolem taalibe yi féete woon ak moom daal ci tënk mën nañoo wax ne soxna si moom ab yaram mi nekk ci diggante lislaam ak ak taalibe rek boo xoolee ku mel ne soxna may itam mi nga xam ne sëñ bee ko booleeg moom waaw maanaam booleeg gi ko sëñ bi booleeg soxna may rek doy na sëkk. sëñ bi moom kum xool ba jàpp ne mm, yaa ko doy ci doomam ngir war ko ko mën a yaral kooku moom mën nañu wax ne lépp lu nit di soxla ci ab yar mi ngi ci moom kon nag euh, loolu ab jaaj la war a doon ci ñun ñëpp góorgóorlu te xam ne kenn ku ci nekk waroo yem ci baax moom dañ ko war a weesu ku nekk dafa nga war a baax nekk kuy baaxal moo xam góor moo xam jigéen ab soññ rek la war a doon ci ñun ak ay jërëjëf sëriñ Abdul Ahad euh, santaat nan bu baax a baax ci kàddu yi nga xamante ni rotal nga ko te muy kàddu yu am solo euh, nga xam ne li ñuy dégg sa lépp mooy euh, soxna si ab yarkat la woon waaye soxna si ku tabe la waaye soxna si ku daan joxe la te ku ne xam na ne loolu dafa bokk ci e, jumtuwaay yi nga xam ne sëriñ Tuubaa da ko daan lëggéeyale yàlla kon santaan nañ baax a baax ci kàddu gi incha allah taala kàddu gi dana dellu siwaat bu ko defee kon ni ko xamal rek Euh, euh, mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi ni topp di seetaan euh, jataay be gis ngeen ni mu amee solo gis ngeen ni mu amee solo daanaka mën na ne njaboot gépp teew nañ sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Basiir Moor teew na ci jataay bi sëriñ Alhaaji Mbàkke moom sëriñ Basiir Moor teew na ci jataay bi sëriñ Ahmadou Mbacke moom sëriñ Baara moom it teew na ci jataay bi sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ moom moom sëriñ Maam Mor Pakala sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ Modou Cheikh sëriñ Amdi Mbacke moom sëriñ Baara sëriñ Mouhamadou Lamine Mbacke moom sëriñ Bassirou Mor sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Bassi moom moom sëriñ Baara sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Baara sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Basiir Moor moom it teew na waaye ni ko noonu soxna Assa soxna maam Assa Mbàkke doon sunu bàjjeen wax dëgg yàlla moom it eh, teew na ci jataay bi ak incha allahu taala ñoom it dana ñëw si ñoom waaye niñ ko waxee woon ci njëlbeenu waxtaan wi rek kon dañu fas yéene jàll incha allahu taala ci sëriñ Moustapha Mbàkke eh, sëriñ Moustapha Mbàkke eh, ci moom lañu fas yéene jàll nga xam ne moom it dañuy waxal mu ngi waxtaanal ci naka la soxna si daan doxale ci digganteem ak ay bokki boppam moom soxna si waaye digganteem ak ay bokki taalibeem ndax xam nga ne kon bu ñu nee soxna Faty Dia Mbacke mooy taawub Serigne Touba euh, euh, danañ gis ni euh, kon mboolem njabootu Serigne Touba gépp ay rakk lañ ci moom waaye kon nan la naka la daan doxalee ci ñoom tey gis nañ ni kër gi it ànd ak lépp ñu xam ni jumtuwaayub sëriñ Touba boobu nga xam ne daa wax ne mooy karaamaam gis nañ ni lu daan dotti ko fii ci daara ji la muy xaside yi ndax am na daaj bu siiw boo xam ne daajub soxna Faat Ja lañ koy wax te loolu jàpp naa ne kon ci kër gi lañ ko jànge woon kon soxna Faat Ja nii nga xamante ne noonu la daan tërbiyaa noonoot la yore wan ay ñoo xam ne la daan tërbiye ci xaside yi waaye noonu la mag ñi doon ñëwee doon barkeelu ci moom di ko jàngal xaside sëñ Tuubaa yi kon sëñ Moussa dañuy ñëw jaw yow incha allah ci diggante soxna si boppam ci ay bokki boppam waaye diggante soxna ci boppam ak taalibe yi auzu billaahi mina sheytaani والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaara di jéglu bu baax it ci jataay bi ndax dañoo toog ak suñuy kilifa di tàmbalee nuyoo bi it ci suñu wayjur wi nekk ci biir di suñ Mouhamadou Lamine di suñ Baara tooge jataa soxna Faty Dia ñu di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ba jim am ci liggéeyal ko soxna Faty Dia am ko ci liggéeyal ko sëriñ Touba suñ borom dimbale ko te dëgëral ko ba def ko ni mu ko bëggee te ñun njaboot gépp ñu ànd koog moom ñu ngi koy siyaare bu baax a baax. di siyaare njaboot gépp di ñaanit suñu waajur ya jiitu nga xam ne ñoom it ñoo àndoon ak moom daan taxawu bis bi daan ci fàttaliku soxna si muy suñ Basiiru Moor ñuy siyaare suñ Xaadim mi nekk ci bopp këram ak siñ Maam Moor Pakala di siyaare suñ Taala mi nekk ci bopp këram ak suñ Moodu Mbakke di siyaare suñ Abibu mi nekk ci bopp këram ñoom ñëpp it ñu ngi siyaare mboolem njaboot gafa nekk képp di ñaan it ñoom it liggéey ya seeni jur yore woon ñu yàggale ko suñu borom taxawu leen bañ def ca lu kawe njort bi barakatu Cheikh al Khadim xam naa nag fi ma dugguloo moom xaw naa xat tuuti ndax damaa jële ci ginnaaw suñ Ahmadou ak suñ Abdoulahat ñoom ñaar mel na ni li ma na wax lépp wax nañ ko fa tabaarakallaa am na solo lool sëñ Axma dafay mel ni biographie soxna si lépp ñëw na ci nga ne moom daanaka tënk na ko ci tënk bu gàtt boo xam ne tey minute yi mu ci wax nii boo ko gàttalee nii rek da nga daal di mën a xam soxna si moom mooy kan euh, sëñ Abdou Lahad tamit ñëw ci côté boo xam ne leeral bu leer boo xam ne da nga xam ne ci wàllu xam-xam la ko tegit nag lool fa tabaarakallaa moom it boo bëggee xool ab yarkat boo xoolee yarkat ba ak yar rek boo dégloo waxtaanam danga ko ci déggee bu baax a baax kon nag fa tabarakallah am na solo lool maanaam man kon damay seenu su ndongo si topp ci seen gannaaw rek soxna Faty Dia yaa ngi may laaj ci relation am ak njabootuk sëñ Tuubaa gi muy taalibe ak mm, doomi sëñ Tuubaa yi nga xam ne mooy seen mag ak bokk yi relation li koy indi ab jaxasoo mooy nit ki day am lu la neex ci moom wala loo bëgg ci moom wala dara kon ñoom ku ne xam na ne relation ba wàllu diine akuk bokk rek moo leen moo leen boole moo leen daan jataaye ñoom ñëpp seen relation relation la woon bu rafet bu ràññiku boo xam ne la ca gën a fés mooy dafa nekk koo xam ne Sëñ Tuubaa rek ka ñor te doomi Sëñ Tuubaa yi taalibe Sëñ Tuubaa yi laay wax ñoom ñëpp dugg ci biir ndax ñëpp ay taalibe Sëñ Tuubaa lañ Sëñ rek ka moom Sëñ rek ka ko ñoroon loolu relation boobu day tàmbalee ci digganteem ak Sëñ Tuubaa ci boppam soxna Faty Dia ku Sëñ Tuubaa fonkoon la ku amoon relation la seen diggante maa ngi baalu sax ci waxin wi waaye loolu ñuy wooye ab jigéen mel na ni sax daanaka dafa demoon ba féete ko ci sëriñ bi loolu ñuy wax ab jigéen mooy sëriñ bi njabootam ngi daan ñëw ci kër gi sax soxna si da leen daan sëñ bi da leen daan boole ak soxna Faty Dia loolu mooy soxna si dafa nekkoon mag ba ñu ci bari ci njaboot ga nekkoon mat na leen way jur te sëñ bi def na ci moom loo xam ne dana bëgg ñu joñjo mu joñjoo ak ñoom bali nekk ci moom it mu xam ñu xam bu baax a baax sëñ bi doxin wi mu bëgg ku ni doxee ak melokaan wi bëgg ku ni mel xam na ne def na ko ci moom loolu bokkoon a ci la taxoon ñi ñi ñi daan jonjook moom mu boole woon leen ak soxna si bari na ci lool ñoo xam ne sëñ bi mm, boole woon na leen ak ñoom. seen relation dafa yàgg ndax ba mu ganee àdduna daanaka ba ni mu fi bàyyikoo ba ni fi sëriñ bi bàyyikoo niñ ko noppee gisee ko wuñ ca Mbàkke Kajoor ja ba ci mujjug njaareem ko wuñu lu dul li sëriñ bi génn ci tukki bi mm, gànnaar gi sax am na ci ñu ma dégg ñu di ci wax waaye nag loolu moom amu ci benn firnde bu koy mën a wéral bu ma ko mën a dëgërale boo xam ne danaa ne fekk woon na sëriñ bi gànnaar dégg naa ko nag ci sax ku ku ku miin soxna si waaye nag wax dëgg mm, mënuma koo dëgëral daal ndax yi am na it ñeneen ñu jóge soxna si ñoo xam ne mosuñoo dégg loola loolu tamit dama koy wax mu ne ndax histoire tamit dafa war di wér digganteem ak Sëñ Tuubaa kon noonu la demee Sëñ Tuubaa dañoo wax ne dafa mënoon a wax ak sëriñ bi ci yar ca teggin ya Sëñ Tuubaa fonk ko lool ndax lim ko fonk mooy ak taalu be taalibe gi nekk ci moom nga xam ne Sëriñ Tuubaa moom koy ànd ak moom ci noonu ngay ànd ak moom loola tax mu sëriñ bi jàpp ko lool ci taalibe googee ba tuddee ko ab murid saadex nga xam ne mbooleem ñi ñëw ci kër ga moom loola mooy seen mooy seen yitte mooy doon ab murid saadex Sëriñ Tuubaa def ko ba jox ko garaat boobu kon seen relation dëgër na te sëriñ bi du ko tuddee nit te xamut la nekk ci moom mbooleem doomi Sëriñ Tuubaa yi mën naa ne ñoom ñëpp daanaka tudde nañ ko doom te nit boo koy tudde doom am na relation bu dox seen diggante te du te du bokk giñ bokk ak moom rek moo tax ñu di ko tudde doom waaye pas-pas bi nekk ci moom muy ak taalu bi gu wér moo tax ñu di ko tudde doom la ko tàmbalee ci sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Mouhamadou Mourtada yaakaar naa boo doon xew néew na ci lool kër goo xam ne boo fa duggee doo fa fekk am soxna Faatija ñi nga xam ne tudde wuñ ko doom it yëkkati nañ ci seen njaboot jébbal ko ngir mu yar leen ngir ñoom ñu mën a am am soxna Faati Ja ca seen kër. ñi nga xam ne ñoo ay taalibe yu mag yi Sëñ Tuubaa ma Sëñ Masamba Jóob euh, ak Sëñ Isaa nag mm, ci mag ñi daal ñu ci bari Sëñ Daaru Asan mm, daanaka bu ma limee damay juum waaye ñoom ñëpp tudde nañ ko doom ñoo xam ne kër goo ci dugg waxuma sax benn soxna faati waaye ay soxna faati yu bari nga fay fekk te loolu lépp mooy gis nañ ci moom ak melokaan ak uk taalibe gu rafet goo xam ne tax nañu ndax nit boo ko bëggut doo ko tudde doom rawate na nga di ko jox doom mu di la ko yaral te ku ko ci tuddewut doom rek jox nga ko ku bokk ci sa njaboot mu di la ko yaral kon loolu bu dëgër la ku ci mel ni Cheikh Mouhamadou Lamine Sëñ Baara moom ab lim bu bari la ko tudde tudde na ko ci njabootam lu baree baree bari newoon na ko it foo fekk sama doom xamal ne eh, jébbal naa la ko loolu dégg naa ko ci ay kilifa yu bari nga xam ne loolu tamit relation la bu mag sëñ Baara seen diggante yeggoon na ci wax nañ ne sëñ Baara da daan wax ne bu soxna si doon góor de ñooy bokk kër kon ñooy bokk fu ñuy dëkk kon relation mënu koo weesu. sëñ Basiiru daawut jóg fi moom soxna si daawut jóg daawut jóg fa moom seen relation dëgëroon na lool Cheikh Mamadou Fadil naka noonu ku ci nekk rek tey boo doon waxtaanee seen relation mën nga cee lu baree baree bare loo xam ne. lu ñu seq la ay mbiri biir yu baree bare yoo xam ne day dëgëral relation boobee sëñ Basiiru doomam mm, indi woon na ko fii ci kër gi loolu kon ci relation boobu bokk na ci la koy la koy dëgëral njabootu Sëñ Tuubaa gi ñeneen ñi ñu ci bari seen njaboot ñu ngi woon fii ci kër gi te loolu lépp seen mm, kóllëre ak jaxasoo gu dox seen diggante moo ko andi woon Soxna Faati ci dafa nekkoon ku Sëñ Tuubaa fonk ku Sëñ fonk lool ndax ab yar dañoo wax ne Sëriñ dafa doonoon ku naqaree waxal ndax bëggut ko bëggut ku ko wax lu du dëgg bëggut ku ko wax kàddu gu naqare te soxna Faati Jaa moom nee nañ ab jotaayam ak Sëriñ Tuubaa noonu la daan mel mooy wax ja jëpp day pësteefu te day wér loolu bokkoon ak li taxoon Sëriñ fonk ko da koo xamoon tamit lool maa ngi ciy nettali benn xissa mooy am na mbokk mu ñëw indi addiya jox ko soxna Faati ja di ko ko joxloo seexul Xadim soxna si ba mu demee dafa fekk siñ bi nekk ci biir mbooloo nekk fa kaddu yi siñ ma Mor ci laa ko déggee moo ma ko nettali te ci soxna si la ko tuxale nee na bi demee dafa fekk mbooloo nekk fa waaye dafa jël addiye ja def ko ci barab boo xam ne leer na ko ne sëriñ bi dana ko gis bu feexee waaye waxu ca genn kaddu da ko faa teg rek dem ba mu demee beneen yoon fa mu fa dellusiwaatee bi da ko ne faati niil diw jot naa ci addiyaam ju tudd turu kooka kon loolu yaqin ji mu am ci Sëriñ Tuubaa ba xam ne bu ko fa bàyyee dana ko xam kon loolu tamit lu lu lu pësteef bu wér a wér a moo ko waral Sëriñ Tuubaa da koo da koo xamoon da koo xamoon lool ndax dañoo yàgg ci tarbiya bi sëriñ bi di wax ca Tuubaa ju jëkk ja nga xam ne booba sëriñ bi mm, gën naa mën a taqoo ak nit ñi duñ wax am jot ndax musta am jot waaye booba gën naa mën a taqoo ak nit ñi booba la siñ bi daan ko tërbiyaal boppam nga xam ne daana wax ne daanañ yenn ba ngoon jot kubéeruk satara lañ leen di jox di ko jëfandikoo ci ndox ak tibbub baraay loolu lépp mooy siñ bi booba da ko doon waajal xam ne kii ku ñuy ku mat ku ñuy kuy taxawu ji ëllëg ak njabootam la koo xam ne dana am cër bu ko féete loolu tamit kon relation ak ak mbooleem waa kër Sëñ Tuubaa yi mooy fii ci kër gi daawuñ fi jóg ñi mii kër gi njabootu suñ tubaa gi ñëpp kenn ku ci nekk daawoo fi jóg mm, ba ci mbokki mbokki taalube yi magi taalube yi suñ tubaa daawuñ fi jóg ndax li suñ tubaa gën a bëgg mooy nit ku jub nit ku yore melokaanu melokaanu ab jullit dëgg-dëgg dafa nekkoon ci moom ba noppi tamit nag muy ak taalube gi nga xam ne nii moom mooy li taaral ab ab murit nekkoon ci moom ba ñëpp ñeewoon ko ci daa ko ci saytu taalibe gi moom neexut a misaal Baye Cheikh Diop mii nettali na ma ne ma ànd naa ak soxna si ay yoon ñuy dem di siyaare ji ci barab bi nee na fii tolloog poste courant bii ci kër Sëñ Tuubaa gi nee na foofu la soxna si du summi ay dàllam sëñ maam Mor tamit nettali na ma ne ma ànd naa moom muy siyaare ji barab bi ci bassin bii nekk ci buntu kër Sëñ Saaliw bi nee na lu baree bare foofu daana fi toog di siyaare nga xam ne du yogg du yegg ca barab ba kon war ma ji muy joxe ni ko sëñ Ahmadu waxe léegi nga xam ne ñun donga yu gën a xeebu yi sax yëgguñu foofa kon day mel ni moom mi nga xam ne noonu la demee ak sëriñ bi kon kon kon kon loolu lu yéeme la woon. soxna Roqee may mas mas na maa nettali na ma sëñ Basiiru mas na fay ñëw soxna si di ko toggal waaye nee na fekk na leen ca waañoo ne leen ngeen ngeen ngeen góorgóorlu ci bu baax de te am ci Pastef doomi Sëñ Tuubaa moo fi ñëw de. nga xam moom mel na ne yëgul ne moom ci boppam doomi Sëñ Tuubaa la kon loolu lépp ci biir ci biir relation bi la xam na relation bi kon buñ ko toppee ci noonu mel na ni dana dana yaatoo yaatoo yaatoo. waaye ku ku nit ku amoon solo la daal te am solo mooy nekk ab jullit dëgg nekk ab taalibe dëgg nekk roytee fu mat sëkk boo xam ne wax dëgg yàlla fa tabaarakallah yal nañu ko suñ borom fayal daal ñaanit mu fi bàyyi ndono li nga xam ne ñun moom lañ fi fekk suñ borom dimbale ñu te teel ñu ko daal ba doxin woowu nga xam ne moom la doon dox ak melokaan bi kon ci moom ñu nit ñu royee ko te te amee ko waaye ndax tamit ku ñuy tudd tudd soxna Faty Dia rek war naa am loo xam ne ku la gis war na koo gisee ci yow kon nag ñu ngi sant bu baax a baax di jégalu jërëjëf sëñ Moustapha Mbacke euh, mel na ni ni nga xamante ne noonu lañ ko sàkk woon ci yow wax dëgg yàlla def nga ci lu kawe njort euh, wax dëgg yàlla euh, waxtaan nga lu am solo ci diggante soxna si ak digganteem ak sëriñ Touba te mooy alaaxa boo xam ni bu yàgg a yàgg la. waaye digganteem ak bokkam yi te mooy mooy mbokki boppam yi waaye digganteem ak mbokki taalibeem yi ndax noonu nga ko waxee defe naa nit ku ko bëggul soppoo ay jikkoom doo ko tuddee sa doom te noonu nga ko waxee mboolem kër Sëñ gi yëpp kenn fu fenn fu nekk ay soxna Faat Ja ma fa ba tey taalibe Serigne Touba yet ñu ci bëree bari ñu ngi tudde seen njaboot soxna Faat Ja euh, kon ñu ngi santaat yàlla bu baax di ñaan sunu moom defal nu dégg ak topp comme noonu nga ko waxee rek euh, ba tey ci jataay bi ni ñu ko waxee rek mel na ni kër gi kenn desut ndax noonu ñu ko waxee Serigne Habibou Mbacke moom Serigne Modou Cheikh moom teew na jataay bi ak soxna maam Dieng Mbacke moom Serigne Baara ak soxna moomi Silla euh, moom Serigne Baara ak soxna maam Asta Mbacke moom Serigne Modou Cheikh ak soxna maam Asta Bousso ak soxna as euh, soxna Astou Diop euh, ak soxna Awa Ndiaye Fall ñoom ñëpp teew nañ ci jataay bi ngir fekk si waxtaanu am solo yi nga xamante ne ak soxna maam Kandi Bousso moom it teew na ñoom ñëpp teew nañ ci bi ak yeneen mbokki taalibe yoo xam ne ñoom it dégg waxtaan wi ñoom it ñëw teew si ci lu mel ne suñu mbokki wëllëri yi nga xamante ne ñoom it nañ ba saam te suñu xaalim jëng leen ñoom it ñëw nañ ngir teew waxtaan wi waaye Baye Ahmadou ni ma ko waxoon léegi rek euh, bu ko defee dañuy ñëwaat ci solo si nga xamante ne moom la ñu waxtaane te yaakaar naa ne mboolem ñuy seetaan ñëpp tey ji xam nañ kan mooy soxna Faty Dia Mbacké waaye am na foo xam ne bëgg naa xam naa yow laa koy laaj wala Serigne Moustapha euh, ndax soxna si euh, dafa am kuréel yoo xam ne daan naan sax fii ci këram di fi jàng xasida moo xam euh, ay bis lañ koy def wala moo xam dañ ko daan def guddi gu ne soxna si nu mu nu mu doxale woon digganteem ak ñi nga xam ne ñoo daan jàngal sëñ Tuubaa ci wàllu xasida kon baam soi am naa ndigal foofu nga dugg fi yow tuuti ndax gis nañ ne am na daaj boo xam ne daaju soxna Faat Ja jàpp naa ne ci daara ji ci kër gi la la la woon. waaw question bi nag dañoo <laughs> mooy bokk na ci genn wàllu xam-xam luñ la laaj boo ko xamul tamit nga ne xamuma ko xam naa daal doon naa ci def ab gëstu ci mag moo xam ne fii la yaroo ku ñuy wax Baye Cheikh Diop loolu question boobu man mii laajoon naa ko ko ci daaj bi nga xam ne siiw na bari na lool fu ñu koy waxtaanee ne daaj bi ci kër Soxna Faati Jël la jóge waaye tegtal bu wér mayit boo xam ne mën naa ko caa sukkandiku moom it xëy na loolu dafa nekk lu ko jiitu waaye xëy na du ñàkk tamit euh, comme nii tamit ñu defe ko ñun tamit ñu bàyyi ko xel mu nekk lu ñuy gëstu ba man cee andi tegtal bu leer man tamit damaa bëgg ñaare bu may wax dara tamit loola day nekk loo xam ne dana ma leer na ma tamit sukkandikuwaay bu wér la waaye daal mooy wér na ne moom ku fonkoon njàngum xasida la njaboot gi mu yoraloon boppam tamit daana leen jàngaloo ay xasida am na ci ay xasida yu ci siw yoo xam ne moom soxna si moom daan daana leen ko jàngalal boppam ñu di ko jàng amaa bu jógee ci moom nag loolu tamit awuma ci moom ab tegtal bu leer daal boo xam ne mën naa ne. waaw loolu moom loolu laa wax ni dama ne loolu bi ma ko gëstoo mag ñooña xamuma ci kenn mooy mag ñi nga xam ne daal nekkoon nañ ci keppaaram loolu bokk na ci moom nekkoon nañ ci keppaaram mu dee daan jàngaloo ay xasida ñu di ko jàng bu baax a baax nag moom amoon na ci loolu moom ku ci mel ni soxna Roqee Mbay ak waa kër Sëñ Baara ñi keroog Baye Cheikh Diop tuddal na ma ci ñu bare ñoo xam ne moom dama mënta jaar ci seeni tur waaye ñoom moom daana leen jàngloo ay xasida ñu di ko jàng amaa jëmmi yëkkati gi nag loolu ci laa amul ab euh, tegtal bu leer boo xam ne moom mën naa ko indi teg ko daal moom xam naa noonu la noonu la demee waaw waa kay jërë ngeen jëf mbokki taalibe yi jërëjëf sëñ euh, Moustapha tontu bi leer na naññ ndax loolu daa bokk ci xam-xam euh, bu ko defee nun ñëpp rek loolu maa ngi koy dénk euh, mboolem ñuy gëstu ci xasida loolu question la boo xam ne ñëpp noo ko bokk xamandoo war nañ ko gëstu ba mu gën a leer ñu ngi ci sant bu baax a baax sëñ Moussa ndax ndax gën gënoo may opportunité bu ñu fi jógee gën koo mën a laaj bu baax a baax kon ni ñuy def rek mooy dañuy jàllaat ci sëriñ Euh, sëriñ am Mbàkke moom it euh, bokk ci njaboot gi incha allahu taala moom it mu indil nu ci kan mooy soxna Faat Ja ak it nam daan yare ak euh, xëy na moom du ñàkk mu jamono mu am xam ñu jamononteeg moom wala ñoo xam ni moo leen yaran rawatina nekkin wi ci biir kër gi ndax ni mu ko waxee man wax naa ni benn baat bi nga xamante ni baat bu siiw te ñëpp xam ko mooy ginnaaw bi soxna mayum sëñ Tuubaa noppee ci njàngum alxuraanam da ko ne wutal dara te dem ca soxna Faat Ja mu jàngale ak taalibe ndax ëllëg yowmal xiyaam lu ne lañ mot man a mot nit ba mu des ak taalibe kon demal mu mot mu jàngale ak taalibe loola rek mel na ne buñ ci yaman kon danañ xam ne soxna Faat Ja bu yaman képp sax ci jàngale ak taalibe te muy ekkalub sëriñ tubaa boo xam ne sëñ tubaa ko tànnal boppam yaral ko boppam te xam nga ne sëñ tubaa ku mu yar moo yàlla yar ñoo yam adabani rabbi fa sana ta'dibi kon defe naa ne kooku ku mu yor ba nga doon ab école boo xam ne da ngay jàngale ak taalibe kooku dëgg-dëgg yaakaar naa ne bu ñu waxtaanee woon ci taalibe ak soxna Faty Dia rek loolu rek mën nañu fee fanaan kon nañ koy jox moom sëñam di incha allahu taala mu dikkal ñu soxna si bismillahi mina sheytaani rajim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra yi teew jotaay bi ñu leen nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam te jégalu jotaay bi ci kaw rek ndax jotaay bu murit moom dafa am luñ ko xamee ak lu am lu kon noo koy jégalu seen kilifa yi ginnaaw loolu it ah, soxna si mm, bu yàlla boole ci jotaay bi ah, ni ko ko seen kilifa yi waxee rek mun cee ñàkk bañ barkeelu ci. luñ lu ñu ki kilifa lu ñu kilifa nettali ci moom loo xam ni wax nañ ni yow doxinam la woon ndax mm, noonu ko sëñ Axma waxe léegi ni Sëriñ Tuubaa daf ko daa wax ni ko war ngay ñaanal sa maam day sëñ Mor ndax moo la tuddoon wax doo ko fàtte kon foofu la ñuy dikkee ba tey tuuti ndax am na kilifa gu ma nettali koo xam ni jàpp naa ne nettali ba nettali bu wér a wér la ndax moom it ci kër gi la bokk muy sëñ ma Balla Mbakke xalifa sëñ Abdou Dia du yoli kooku def naa ne lu mu la nettali boppam lu wér la war lu wér la sëñ maam Balla nettali na ma ni ma soxna si day moom ci boppam moom moom sëñ maam Balla dafa am xar moo xam daf koo dénkaane woon fii ci Daaru Xuddoos gi xar ma yàlla doon doon ko fa yarlu xar yàlla def soxna si yaakaar naa dafa dem dafa dem dafa demee gis xar ma laajte ko te xar mi rek sëñ Maam Balla ko moom ñu bàyyi ko noonu yàlla def sëñ Maam Balla dellu fa ki mu yarul xar ma ni ko ah, soxna si de ñëw na fi gis na xar mi de ba laaj ko ko moom ñu ne ko yaa ko moom sëñ Maam Balla ne ma ma ma ma wamat xar ma andi ko ci soxna si dama ko joxe addi yàlla def xar moomee nee na soxna si mu ngi ko yóbbuwoon yóbbuloon tiib ci sëñ Basiru de fa la ko dénkaane woon yàlla dogalee muy liggéeylu barabu sëñ Mamoor Anta Sali ba la yónnee xar ma ñu jëleli ko mu defar ko ca ca barab ba bañ ko daataan tàmbali xar ma lañ ko lañ ko defar yàlla yàlla suñu maam Balla nee na ba ma yàlla dogalee ma desewaat fii ci ak si ci kër gi di ko di ko di ko di ko siyaare mu ne ma yow day war ngaa sant yàlla bu baax ndax sa xar moom mel nga ma joxoon fa ma la ko defal day war nga caa sant yàlla ndax barabu sëñ Mamoor Anta bu ba ma koy defar xar ma lañ fa jëkka ma lañ fa defar lañ fa jëkka defar ko defar wax nañ ni barab ba it sëñ Abdou Dia sëñ Ibra sëñ Ibra Dia moom la ko doon taxawuloo moo yoroon liggéey ba wàllu liggéey di ko taxaw ba yàlla dogalee mu taxaw ko ba ba ba bar ba noppi mu ba ñu tëj ko mu indi caabi di ko jébbal ko soxna si bi mu ko jébbalee nee nañ sëñ ci boppam dafa dafa jóge fii dem ci sëñ Amsatu Jaxate ñëpp xamoon nañ ko ci yoon yi sëñ Amsatu ni ko yow dégg naa soxna si da doon defar barabu sëñ Maodo Sall mu ne ko waaw ma ma man mii ko doon taxaw mu ne ko barab ba de ba mu noppee bañ bañ jébbale yi dafa liggéeyaat nañ ci àjjana junni juni kër yoo xam ni barab baa tax ñu liggéey ko kon loolu ab cër la woon kon loolu mu ko doon wax naa ko mbaa fa doo fàtte sama am ndax moo la tuddoon kon loolu am na lu mu ci firnde taqoo gi itam wàllu taqoo gi ni ñu ko waxee ni soxna si ku taqoo nag moom la. ndax ku ne xam ne sëñ bi ba mu demee ci dëkk bees yi njaareem la la la féete soxna si it ñëpp xam nañ këram googu mu fa amoon nga xam ni wax nañ ni daawul xëy te xëyul sëñ bi daawul xëy benn bis te xëyul dem ci sëñ bi wax nañ ni it am na bu ma fa mosaan dem am na tuut tànk yoo xam ni ñoom ñoom ñoom ñoo ko taxoon ñoom la daan àndal tuut tànk yooyu sëñ maam lii it may wax sëñ maam Balla moo ma ko nettali ba tey du tànk yooyu dañuy wax ne am na ndab lu mu daan ngàbb loo xam ne ñoom ñoo ko daan ngàbb bu mu ànd soxna si jëm ci sëriñ bi bu si demee ci sëriñ bi nee na day nuyoo bu nuyoo sëñ bi fay ko léegi tout tànk yi mu àndal am na ñaari mbuus yoo xam ne day nekk ci wetu sëñ bi yoo xam ne bii mbuus misk la def mi mbuus def tàngal sëñ bi naq ci misk mi defal leen ci defal tout tànk yi naq ci tànk defal leen ci ndab soxna si nuyoo soxna si nuyoo nee na soxna si bu ñëwee bu nuyoo mu fay ko bu waxee mu tontu ko nee na am benn bis soxna si xëy si nuyoo nuyoo nuyoo sëñ bi fayu ko fayu fayuñu ko fayuñu ko mu mu wax kenn tontu ko mu dellu ba ci ëllëg sa mu dellusiwaat nuyoo ñu fay ko mu wax ñu tontu ko soxna si ni ah man de démb dama fee ñëwoon nuyoo waaye kenn fayuma ma ma wax kenn tontuwum mu ne ko so sëñ bi ne ko kon de du nun ndax Seydina Jibril dafay ñëwoon wax ma ni ma sa borom nee na dafa am kër yu ñu liggéey ci àjjana yoo xam ne yaa tax ñu liggéey ko dafa bëgg na nga ñu wërsi ko léegi kon dama bëgg kon nga dem ma toogal la fii nuru nuru la ba nga desi si tax nga fa fekk loolu kon li wax ci soxna si ni ko taxoon ak sëriñ bi la kon taxaw ko lu wér la wax ni it suñ suñ moom doon sali wax li wax ni sëñ bi waxoon na ko ni ko waroon ngay ñaal sa maam ndax moo la tuddoon loolu it kon leet ay fir lu wér la ni loolu soxna toppatoo woon na lool bu baax a baax moom ko doon bàyyi xel kon daal ci gàttal mooy lii laa ci bëggoon wax wax it wax dëgg yàlla ñu barkeeloo ko daal ndax mënut a ñàkk waa kay jërëjëf waaye sëñ am di wax dëgg yàlla kàddu yi nga indi am na solo lool ndax euh, indiwaat nga dëgg-dëgg euh, diggante sëriñ bi ak euh, soxna si ndax loolu nga wax rek mel na ni kon nga xam ne sëriñ Touba li ma déggee ci wax ji mooy sëriñ Touba ku ku ku ku ku yéemele woon ndax loolu xekk ma gi ci xew mooy wax gi mu ko waxal ne ko bul ko fàtte ndax moo la tudd kon loolu moo sabab booy xool soxna si moo taxaw barabu Maam Mor Anta Sali te tey jii mën naa ne wax ngaat kàddu goo xam ne li tax euh, euh, ñoom seen jataay yii dafa bokk ci jataay yi nga xam ne ànd zikri saalihina tanzilu rahma maanaam bu ñu leen dee fàttaliku yërmande suñu borom day wàcc boo xoolee tey euh, indi nga rek benn baat boo xam ne jaraan na tey ñu toog fi wane kan mooy kan mooy soxna Fatou Dia ndax baat bii nga wax tey bare na ñoo xam ne ci yoonu murit ñu ngi ci dund te xamuñu ko te kon tey jii xame nañ ci ne soxna Fatou Dia mooy ki nga xam ne moo taxaw barabu Maam Mor Anta Sali defar ko te loolu defe naa ne ñi ko xam bariwut kon santaan nañ bu baax a baax kon li ñuy def rek mooy euh, dañu fas yéene jox sëñ Abibu Mbàkke moom it dañ ko jox kàddu gi moom it mu indi euh, euh, ab tegtal wala ab jàngale moom it ci soxna si aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim bismillahi allazi laa yadurru maa ismihi shay'un fil ardi wa laa fis samaa'i wa huwa ma ngi nuyu mbokki jullit yi fi daje ñaan sunu boroom kàttanal nu ba yéene ji nga xam ne am ngeen ko ci noonu ngir nun mën a wax ci soxna Faati yi nga xam ne mooy tawab Sëriñ Tuubaa sunu boroom kàttanal nu bañ wax ci luñ xam ne danañ ci mën a jëriñu àdduna jëriñu ci àllaaxira fii tàmbalee nag mooy diggam ak alxuraan alxuraan moom sëriñ tubaa daf ko ko dénkoon dénk gu wóor a wóor ba wax nañ ne saa bu masaa toog ba dugg ci waxtaan woo xam ne day niru waxtaanu àdduna day jékki-jékki ne bëri ne maa ngi dellu ca la nga xam ne moom lañ ma bàyyeeloon muy alxuraan bu ko daa jàngit da koy wax ca kaw ñëpp di ko dégg niru gum niru woon sëriñ bi kàddu yit taxoon na moom ci boppam daa wëlbatikuwaat di dégluwaat jëmmi jàng nga xam ne mi ngi koy jàng ngir niru goo xam ne niru na sëñ bi kàddu ba sëñ baara mii nekk ci biir moo ma nettali waaw jataay ba yaakaar naa sëñ Ahmadou mi fekk na ko mu wax ne moo tàmbalee bàqara ba minal jinati wa naasi arrêté ko ci ay kaset soxna si ci boppam daa dégluwaat loola ngir niru goo xam ne da koy niru sëñ bi kàddu di ko fàttalikoo sëñ bi moom sëñ Baara mii moo ma ko nettali mii ci biir jëm jëmmi ñi nga xam ne ñoo toppoon sëñ Touba itam kenn ku ci ne am nga loo bàyyi woon xel ci moom wax nañ ne mas naa jóge fii jëm Daaru Salaam bim dikkee ba tolloog ndaam sëñ sëñ daam Abdourahman loo séen ko soxna si it séen sëñ daam xam ne kii kat maanaa ku xir ci sëñ Tuubaa la bu séenee soxna si dana am lum jeexatal ci moom soxna si mel ni ku koy xaw a làqu sëñ daam séen ko dëgg tànk yu dëgër ba daje ak moom ba mu dajee moom daa sukk ñaari bëti moom ci suuf ne ko asalaamaaleykum soxna si ne ko aleykum salaam mu nuyoo ak moom ba noppi sëñ daam ne tàllal koy loxo ne kon nag bisimilah ne ko koo xam ne la wuti lépp fañ koy wute ji ku fa dem fekk ko ku fa dem bàyyi ko boo ko gisee bay ba nga wax ko sa soxla daal koy wan gannaaw dem ba sori daal di tàllal ñaari loxoom daal koy békk soxna si daal ne am looy wax sëñ bi de bay ba wax ko ko boo ko waxee dana ci jot daal di koy wax ñaan ay yitte moom daal di daal bokk na ci itam li nga xam ne ku ko xam maanaam moom nga ko xamee mooy liñ doon wax ci diggante yéwénal ak bokk loolu moom lim ci def kawe na njortu am xel itam mënu koo xalaat. ndax suñ sooy mii seqoon na ak moom loo xam ne wax nañ ne ngan goo xam ne daf ko ko gane si woon ñëw ko fii ci biir kër gi ba mu fi jógee soxna si wax ne ñaan naa sama borom de ba sama borom may na ma ko jéegoom yii de képp ko ci dox suñu borom jéggal la na bañ defee noona ba mu delloo ñu tegaat ci ab diir soxna si ci boppam dellu ne ñaanaat naa fekk ay bis wax nañ ne sëñ Saliou daa fekk boobu mu yónni fi ay ndaw ndaw yooyee bañu ñu demee nettali ko sëñ Saliou sëñ daal di jugal boppam ñëw ci biir kër gi bam ñëwee moom itam mujj nag yëf fi def njooxe kenn ko ne mooy siyaare bu siiw boobu nga xam ne ñu ngi koy dégg nga xam ne moom lañ ko doon siyaare si diggante ak sëñ Abdou moom itam fa tabaarakallaahu doomi sëñ Tuubaa yëpp kenn ku ci ne nam doon jëflanteeg yow dangay jàpp ne yow rek la la ndax ñii la dale ci sëñ Moudou Moussa lañ wax ba ci sëñ waaye noonu la jëflanteeg ñii nga xam ne ñoo fi mu itam ndax sëñ Abdou tabaxal na ko fii ci biir kër gi sëñ Saam du la moo fi njëkk a tabax ba mu tabaxee ba def sëñ Blaat dikk seng sëñ Saam ne kër gi yaatu na bu amee lu bëgg a def mën na ko fee def sëñ Blaat doog fee tabaxaat yeneen yaari ci ci wet goog yi man mii jëbbal ko sëñ Blaat sëñ Basiru Moor mii ku ko xam xam nga ko sëñ Blaat yëkkati sëñ Maam Moor Fakala jox ko sëñ Saliou kon kër gi moom bàyyilu fi kenn dara léppam da ko joxoon sëñ Tuubaa digganteem ak taalib itam kër gi ñun dëkkee ñu nekk nii bi nga xam ne natt nañ ko natt bi agsi na bañ xew yëpp mu jaaxaan sëñ falu daal di yebal waa xur wi ne leen dem leen ngeen defaraati kër ga bañ dikkee soxna si ci boppu moo leen wax ne ahlu badrin di ñëw nañ ci kër gi di laaj lu waral ñu def nii kër gi léegi nag yéen ñi ko defaraat nag ba mel nii ba defaat benn bunt yéen kenn xamul seen ak fay nu muy toll daal leen di ñaanal ñoom it ñu doog a sëñ Baara bindal na ko ab kaamil boo xam ne ci këram la ko binde loolu it sëñ Cheikh Diop mii sëñ bii doon wax moo ma ko nettali sëñ Baaram sëñ Touba bindal na ko kaamil boo xam ne ci weer la ko bind noppi fa ab photoom def ca taf ko ca téere yi nga xam ne moom la doon yóbbuloo ci jumaa ja nga xam ne biñ ko defee ba noppi sëñ du la yebal ne ko woole ma ko jox Alioune Diop mu defaral ma ay gaal Alioune Diop moo moo defar gaal ba noppi dikk ñu fab téere yëpp def ko ca bañ ko ca defee ba téere noppi mu fab téere boobee mu laaj Cheikh Diop ne sëñ Baara de bindal la na ab téere boo xam ne defe naa daa niru yi nga yor de mu ne ko waaw moo di ubbi ñu gis photo sëñ Baara bi nekk ci mu ne ko nañ ko boole ci yi yóbbaale ci jumaa bañ ko defaree ba noppi mu bind aw kayit daal di kii bind te ko ca kaw ne ku bëgg a jàng na jàng waaye ku yóbbu yàgg borooma lenn la mu fab ko yóbbu ko ci barabu Mamour anti Sali boobu ca Dexale ku fa dem ku ne dañ la ko wax danañ ne yi soon Faati Ja moo ko fi indi woon noonu it mu taxawoo ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ba ay ba nekk ay kilifa noonu la taxaw ña nga xam ne ñoo jiitu dem barsaax maam Mouhamadou Yadaali mii taw sëñ Touba barabam bee moo ko njëkk a defar sëñ Abdou Salaam barabam bee ca xuru Mbàkke moo ko njëkk a defar moo ko defar moo ko njëkk a barab yee nga xam ne euh, ñun ndaw ña fa nekk moo ko njëkk a miire ab liggéeyam foo jàpp ne àggu fa àgg na loo defe ne defalu ko sëñ Touba rek defal na ko lu ko ëpp waaye sëñ Touba faye na ko loo xam ne itam ndax sëñ Baara mii de damay wax ne li ma ta sant yàlla de mooy yéen ñii duma ci gis kenn muy dox wala mu toog ci jataay te nga but kurus mba muy rub téere te xam naa ne ku mu ci doon ci ñi ñi ko yàlla sédd mu dig njabootam koo ci gis muy def lu naqar yàlla moom man tegguma ci sama bët te loolu rek mooy ndam nag mooy ndamul adduna mooy ndamul alaxira yàlla suñu borom boole dimbale defal na tawféex wasalaamaaleykum wa rahmatullah. ah jërë ngeen jëf euh, mbokk taalibe yi nga xam ne yéen a safoo seen télévision ma fàttewul Bichri TV tey jii nag comme niñ leen ko waxoon ñu ngi fii ci Dia Soxna Faat Dia euh, wax dëgg yàlla dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xam ne moo fi moo fi rote nga xam ni euh, xol yëpp tooy nañ nga xam ni kon ni ma koy waxee dafa mel ni àdduna fii la toll tey Soxna Faat Dia symbole la boo xam ni moom képp buñ ko tegan war naa doy ab jàngale ndax gis nga nii ko Baye yi waxee léegi nga xam ne moom daanaka euh, barab yu am solo yii fi nekk yëpp senegal day mel ne foofu fi gis rek loxoom soxna Fatou dugg na fa euh, kon moom mu doonoon koo xam ne tey euh, wax dëgg yàlla ni ñu koy waxee saa su ne soxna Fatou loolu alxuraan di wax ne laxat kaana lakum fi rasulillah uswatun xasana dafa mel ni soxna Fatou rek mën na koo firi ndax ni ñu ko dégg nii da gis ne soxna Fatou ab liggéeykat la woon. ab liggéeykat la woon ndax li mu euh, euh, liggéey yu am solo yi mu fi wax bu du woon ab liggéeykat du ko man waaye ab yarekat la woon waaye ku daan ku ku takkoo woon ak sëñ Tuubaa la loola nag moo ko may li mu am ndax dégg nga ko ni mu ko waxee léegi sëñ Abdourahman Lo mu doon ko xam ne dafa fonkoon sëriñ Tuubaa ba comme xam ne jege nga sëñ Tuubaa dara daf lay fonk kon mbokk yi eh, lii mooy li nga xamante ni moom lañ leen jëlale woon fii ci kër Soxna Faat Ja kon nañu jox Baye Ahmadou moom it bu ko defee mu indi ay kàddu yu ñu door a wéy ci ci ci ci tëj émission bi incha allah. kon day kàddu yu mujj yi moom kàddu yi soññe rek lay lay doon jëm ci bis bii nga xam ne mooy bisam bi nga xam ne. mooy biñ koy fàttalikoo ca muy ñaar fukki fan juróom ci baraxlu yi war a taseeg ñaari fan ci weeru tuwaab yi ñuy wax suyen bis bi nag ñu ngi ci ñaan képp koo xamante ne bii suñu boroom mën na mën na la ko foo mën a nekk ci ci àdduna loo mën ci alxuraan ak salaatu ala nabi di sëriñ Tuubaa yi nga jàng ko def ko addiyee soxna Faati Ja ndax fii nga xam ne fi lañ koy fàttalikoo de ci atam bii bis boobu yi bu ñëwee mboolem kër yi yant lépp fépp foofa dem loolu rek nga fay gis jàng alxuraan jàng xaside salaatu ala nabi berndeel loolu rek mu nga fay gis dafa gis leneen kon nag ñoo ngi koy ñaan képp koo xam ne nii rek ab jullit nga rek foo mën a nekk bu bis boobee na nga nu dimbale ci jàppale nu ci fàttaliku googee ñu koy fàttaliku ci melokaan woowu yi kon noo ñaan képp koo xam ne ne ñëw nga ci bis bi jëpp aajo joo fi àndaale moo xam aajo yi saaxir la wala ju la ju mën a doon yàlla na ko Sëriñ Tuubaa faj ci barke borom bis bi ndax borom bis bi kat euh, ku liggéeyal Sëriñ Tuubaa la waaye Serigne Touba fay na ko lool ndax li fi wax lépp nag dañ doon jàngale rek dañ doon wax ci jàngale kan mooy Serigne Soxna Faty Dia waaye nag lii wàllu baatinam laaluñu ci dara ndax baatin xëy na da ko taxut a jëkk moom waxtaan wi waaye bu ñu leen demaloon ci mbiru baatinam kon da ngeen xam ne fu fu fu nitug yàlla de àgg ci baatin rek àgg na ci ci baatin ndax am na ay xisa yu wér yoo xamante ne bii jaar na ca. waaye nag ni ñu ko waxee rek ginnaaw moom jàngale kan mooy soxna Faty Dia rek moo tax waxtaanu jóg moo tax gon googu wàll moom duñ ci xuus waaye daal amuñu benn sikk sàkk ci ne lépp lu waaye fas ci bis bii boo ko amul rek ci sa pas-pas la kooku mu amul benn sikk sàkk kon nag yàlla na ñu yàlla sama borom dimbale may na xol yoo xamante ne bii sell lay doon yu mën a taataan ban taate nañ ci loo xamante ne bii yiwu àdduna lay da lay lay lay lay làmboo ak yiw àllaaxira wu dul jeex mm. ci barkeb sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf. sëriñ Ahmadou <coughs> moom sëñ Baara ci kàddu yu am solo yi nga xam ne moom nga tëjee jataay bi waaye xam ngeen ni comme ci kàddu yi cant yooyu ñu ngi sant sëñ Abou Mbacke bu baax moo moom sëriñ Bassirou Mor. nga xam ne moom it euh, suñu wëllëre la bu yàgg di sant sëriñ euh, Ngañ Bay mi nga xam ne yàlla dogal na moo doon yëkkati xaside yi waaye gis nga suñ Diallo suñ maan bi nga xam ne naka jekk fu ñu dem moomit it dañuy ànd ak moom ci liggéey bu sell bi kon euh, sëñ Abdou Lahad dañ lay jox nga indi sa kàddu yu sa kàddu yu mujj su ko defee ñu mën a yëkkati jotaay bi. ñuy sant bu baax rek di jéglu kilifa yi bu baax di ñaan suñu borom may ñu ko ay ati at fekk magal ay ati di ñaan di sant waa télé bi itam di ñaan yàlla na barkeb turandoo mu ko waaw bi wax ne wajaal tixil xurufa fawqa kulli ma rasamahu muallifum qad salima loolu yàlla na seen télé bi moom tamit mu kawe beneen télé bu moom ak sëñ te mu may ñu itam ba ëllëgee moom xiyam fu ñu taxawee ci kanam soxna si nag bu ñu rus comme ni li nga xam ne wax nañu sëñ bi mos la ko wax soxna si ne ko dafa bëgg bu ëllëgee yomal xiyaam ba turandoom muy Fatimatu bintu Rasulillahi nekk ak si wetu way juram moom soxna si mu mën a mel noonu ci sëñ bi yàlla nañu suñu borom defal itam ba ñu mën roy ci loolu rek ba barke boobu walangaan ci ñun képp sëñ bi ngeen ko noonu ñu ngi santaat bu baax sëñ Abdou Lahad ci kàddu yu am solo yi ñaan suñu borom mu defal na tawféex ak sant daare ni kon dañuy jox sëñ Moustapha moom it mu nday kàddu yu tàggoom ñu tëj émission bi incha kon de xanaa kàddu yi ñuy tëje kàddu yi sant bu baax a baax rek ni ko mbokk yi waxee cant gi dañ leen ci jiital yenn waa télé bi di ma faatixul Bichri baytu xasida boobu sëñ Abdou wax. muy baytu xasida sëriñ bi ñaan googu yal na leen dal mbootum xasida ak mafaatixul bishri mafaatixul bishri mooy ay caabi yu mbégte caabi yu mbégte yooyu nag yal na leen ko ci suñ borom defal tur wi yegg fa nekk caabi mbégte yooyu tamit man naa doon loo xam ne day doon ndax ku ne xam na ne siñ bi mbégteem mooy lépp mbégteem luy defar xol rek moo ko tax a jóg kon yéen it loolu bu liggéey yal na ko suñ borom jëmee foofu muy lay defar xoli nit ñi defar seenu jikko mu yaatu lool nag si barkeb sëriñ bi mu doon jumtukaayu liggéeyal sëriñ Touba yéen leen ci yàlla dimbali taxawal leen ci bu baax a baax kàddu yi ci desit mooy mm, xanaa ma def ko mm, ñaan ci barkeb sëriñ Touba bis bi nga xam ne moom lañ dëgmal suñ borom defal ñu ñu daje cee ngërëmul suñ Touba ndax ñun ñëpp nag loolu rek moo ñu tax a jóg yal nañ ci daje ak ko fàttalikuwaale ci tamit ne liñ doon waxtaanee mooy dafa am jëmm juñ tegoon teg ko fi suñ kanam di ko waxtaanee. jëmm jooje nañ ca bàyyi xel bañ a jàpp ne ab émission mooy waxtaan noonu rek mooy dañuy jël jëmm ja teg ko xool yu baax yi ñuy wax ci moom ak melokaan yaag defin yaag yooyu ñu fas ko yéene roy loolu mooy mooy fàttaliku nit mm, ma tëje kon benn soññee boo xam ne sëriñ Touba daf ko soññoon soxna Faati Ja te ñun ñëpp mën nañ cee dugg mooy euh, soxna si mm, dafa am ci mbokki taalibe yi ku ko liggéeyal ab néeg bi mu ko ko defaralee soxna si xolam sedd ca lool mu ñëw ci Sëriñ Tuubaa di ko ko wax di ko jot li kàddu wi sant bu baax sëriñ bi ne ko aw waxinu wolof la wu leer wu mat a dégg bu baax a baax ne ko di sant mbokkum taali bi ma ko defaral loolu ngir jëmmam soxna si ne ko ànd ak nit ànd ak nit wala ànd ak jëmm damay bañ a nettali waxin Sëriñ Tuubaa bu bokkut ni mu ko waxee waaye ànd nit wala ànd ak jëmm aw ko xaala radiallahu anhu ànd ak nit ngeen jëm ci ngeen jëm ci peey mu yaakaar ne yaa ko fatane mu di la neexal ngir defe ne yaa ko fatane nga dem mu tànn la fa dara jëru ko ànd nit ngeen jëm ci peey mu di la neexal ngir defe na yaa ko fatane nga dem taniwoo ko fa dara jëru ko loolu ñun ñëpp mën nañoo dugg ci biir asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf mboolem mbokki taalib yi nga xam ne ñoo safoo seen télévision ma faatuwul Bichri TV euh, gis ngeen noonu ñu leen ko waxee woon yaakaar naa ne ñëpp am nañ lu kawe njort ci waxtaan wi nga xam ne moom lañ doon def si jëmbu ji tedd ji di soxna Faat Ja Mbakke moom Serigne Touba dégg ngeen noonu ko waxee ci digganteem ak ay bokkam waaye ci digganteem ak xam-xamam waaye ci digganteem ak ak njàmbaaram waaye dégg nga euh, yu am solo liggéey yu am solo yi nga xam ne def na ko ci yoonu murit nga xam ne loola dootul fay comme niñ ko daan waxee rek di ko baaxoo waxee mooy soxna faat ja kon tey li nga xamante ne yonent bi salaa salaam doon na ko wax moom sunu borom defal na ko mooy nit su fi jógee mbiram yëpp dog na ba mu dese ko ñett doom ju baax ju koy ñaanal te kon jàpp naa tey taalibe Sëñ Tuubaa yëpp soppi ko nan doon dooni doomi soxna faat ja Mbàkke di ko ñaanal fenn fu ne xam ngeen ni jataay bi it dugg na ci jataay yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa daa waxal ne fépp foo xam ne ña nga fay wax waxtaane mbaaxam nga wala ñu fay waxtaane xasidaam yi mu tiim ñooña di taw ci seen kawaayam xéwal ba keroog ñu fay jóge loola dugg na ci sunu jataay bii waaye dugg na ci inda sikri zaalihina tanzilu rahma waaye dugg na ci wa kullu man xadamani aw saara waaye dugg na ci waqdi xawaaji la sina daamoo fi xidmatin waxam maaramu kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mboolem mbokk yi doon seetaan lii mooy émission bi nga xam ne moom la leen amalan fii ci kër Soxna Faty Dia Mbacke nu ànd koog sunu caméraman muy Serigne Gora Diallo muy sëñ góor jàllo ñu ngi santaat yàlla bu baax ci tawfeex gi nga xam ne defal nañu ko ci ñu tàmbali ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ci alhamdulilahi rabil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.